ci dellu si waa tuuti Birama ayca ñu daw dugg ci assemblée nationale. waaw loolu man laa si sànni. waaw parce que xam nga. Mhm. boo ne njàng. te xam njàng lan lay ci réew. Mhm. dama yoroon programme 1 5 5 ni dañoo war a defar nit te nit mënoo ko defar tàmloo si bas muy xamal ko. Mhm. te dañuy tàdd yëpp ñàkk am xam-xam moo ñu ko waral. parce que Sénégal 85 pour cent yi jànguñu jànguñu tubaab jànguñu alxuraan. 15 pour cent ñoo si jot moo tax réew mi mënul développé parce que réew mu nar a développé ci aw askanam lay sukkandiku développé léegi ñooñu jàng ba ak seen foofu noonu ak seen yaakaar famille bi ñàkk seen alal ñu bëgg leen a xañ loolu lépp ngir avenir réew mi ëllëg ñi nga xamante ni si lu waroon a sukkandiku pour man see dem ñu ba leen ko xañ loo xamante ni jàpp naa ni lu mu war a mën a defaraat man jàpp naa ni loolu bi mu ko déggee contacté naa ak ministre bi nga xamante ni moo ko yor parce que bul fàtte ni ñun ak ñoom ñoo nekkoon. nee naa ko lii nga xam moo am kaw la day ñun naqarul nañ ko. waaye ban solution lañ ci mën a def ba nga xamante ne xale yi ñu mën a def seen examen. tout mm-hmm. bon jotuma ko parce que xam nga ministre Ousmane Sonko yi kenn du wuy téléphone. Mm. waaw loolu déggagum nañ ko. loolu moom mooy li am. ok ma bëgg a man naa ni euh, askan wi leen fan. Bassirou waxu leen loolu de. man mii aw si benn ministre bu may woo pour sama soxla soxla askan moo tax ma mais koo si woo téléphone du la jël. dégg naa ay journaliste di ko kaas. parce que à bi ma jógee euh, Canada ak états gis problème yi Sénégalais yi jànkonte ba rafet ñi nga xam dañoo nekk ay réfugiés ak problème Maroc ña fay dee bi ma doon jéggante ak ministre de la euh, ministre des affaires étrangères et intégration africaine depuis sept sept fois woo ko téléphone nangu ma jël envoyé ko message du la sax tontu. te ak moom ñoo daa ànd États-Unis di déposer ay tuuma yi doon tuuma Aliou Sall yëpp bi ñu nekk opposition bi. mais ñoom ñëpp sama ginnaaw la doon topp di daw. mais est-ce que mais est-ce que changé wu ñu numéro téléphone tamit est-ce que changé. parce que mais déedéet déedéet sama numéro téléphone. mais mais seen numéro ñu ngi dox ba tey si même profil bi même numéro bi lañ yor. Hmm. ministre de la femme démb bi ñu defee seen réunion par assemblée nationale nga xam ne moo jëm ci mbirum euh, social. Hmm. ku ne xam ne social Sénégal yëpp ñu ngi ko dund am ay ndaw yoo xamante ni lu mat ñeent fukki xale ñu ngi si ay hôpital di xaar maanaam fi lañ jàppale. Hmm. te amagul ndimbalu état bi. may mën a jéy mi maire de Patte d'Oie ma dikk woo téléphone nangutu jël téléphone te bi ñu ko jàppee fii nga xamante ne mooy euh, police bi man maa leen fekk yëkkati trois cent mille francs may leen ko moom ma rek ros yooyu yëpp ma defal leen ko si jamono opposition bi kon ñoo mel noonu bu fekkente ne àggalul fenn fii bu leen di woo pour soxla askan bi nañu répondre pour soxla askan bi c'est nekkuñu ñoo xam ni hmm. dañuy topp si ginnaaw Diomaye Faye kii ko Sonko rawat na ñoom ñi nga xam ne ay suqalan ñun Sëñ Tuubaa teral nañu nañuy wuyu ay téléphone di wax ak askan wi nga xam ñoo leen fal mm-hmm. te dénk leen ay responsabilité mm-hmm. loolu tamit moo tax ma ni Abdourahmane Diouf mi yor mbir moomu ak ki nga xamante ne mooy Moustapha Grace mi nga xamante ni xam nañu ko baax parce que ñoo nekkoon Assemblée nationale nañu di wax ak askan wi di wuyu téléphone pour régler problème sénégalais rawatina it élèves yi nekk nag Kaolack mm-hmm. nu mu gën a gaawee ñu relu ko pour ñoom ñu mu continuer parce que